بالله من الشيطان الرجيم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم ۖ ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين صدق الله العظيم بسم الله السلام عليكم نجي دوكل سيبوبو دوكل مرينا دابور واي دوكل سنغال يبيتم ci teraanga bi nga xam ne yàlla may na ko Sénégal jaare la ko Mérina mooy benn doomu Sénégal dem na ci àddina bi tëccoo alxuraan indi ndam jëlee ko fa indi ko ndam fii Sénégal loolu ku nekk xam na ne teraanga bu yàlla may Sénégal yi la ñu fonkee ko alxuraan lu fi nekk nii bu ñuy wax ne Sénégal àgg na mooy ci ñeenti pays yi jiitu ci alxuraan ci àddina bi Sénégal ci la bokk loolu ku nekk xam na ne teranga yàlla teranga yàlla la itam bu fekkee am nga ay waajur yoo xam ne jébbal nañ la alxuraan ba am ci ndam bi ñoom tamit ñu ngi leen di ndoxtal ci loolu di leen ñaanal yal na yàlla won leen barke alxuraan ci seen biir nekk alxuraan xale bi laaye bi ñu mujj bi ñu jàngal laaye bu bu ñàng la waaye wa laala bu yonent nee yàlla daf koo wax ne o but rabbaka xatta yaatiyakal yaqiin kooku ma demal commerce ji waxuma demal bayi waxuma demal liggéeyi def ne ma ubud rabbaka hatta yaatiyakal yaqin jaamul sa borom ba dee loolu rek la yàlla sant bon ci lay nekk te loolu ci la nekk jaamu yàlla ba dee laay jooju xale bi mu ngi koy fàttali ñun ñëpp ne dëgg-dëgg yàlla lu muy sant ñu liggéey liggéeyal àddina itam ah war nañoo fàttaliku bés boo xam ne bu ñëwee danañ fàtte àddina jooju ñu doon liggéeya te mooy bés penc yàlla nañu ci yàlla teral yàlla incha allah boole ci jaamam yi muy teral te bés bu kawe boobu bés bu ñàng boobu bés bu raglu boobu ñaanal yàlla xale yi maaxi euh, euh, yal na yàlla yokku tànkam dëgëral ko ci alxuraan ci xam ko ci mokkal ko ci déggu ko ci mën koo jëfee ci boppam ak ci biir Sénégal gi nga xam ne nuy mënti mel itam ay jullit lañ bëgg nañ lislaam waaye invasion culturel occidentale bi daf ñoo yàq ba xamatuñ fu ñu jëm ah yal yàlla dimbale bañ gën a xam ràññee bu baax ne Sénégal teranga maa ngi nii ah, te bàyyeekoo ci kenn ku ci yàlla rek la bàyyeekoo wàcc ci xale bi ay ay ay waajuram sàkku rek lañ mënoon waaye kii moo mottale nag di joxe muy dëggu yàlla rek la te yàlla jox na ko ndax dem na yàgg na xëccuy ci alxuraan ci biti ñëw di indi nag nam bi nag moo ci gën a màgg ba ba gënu ci màgg waaye ci yi gën a màgg la ndax dem na ci réewu Afrique boo xam ne oote nañ pour alxuraan ba mu demee mu jël deuxième ah te xam naa ne deuxième boobu sax am na ay pexe ragal naa ko waaye boo tudd moo waroon a jël premier ndax ku dégg ni mu jàngee nii di nga xam ni ku xam li muy def la ku ko xam la ku xam li muy def la. ku ko mën la ku ko dominer la ah yal na yàlla yokk ko yal na yàlla bëri ci suñuy doom suñuy njaboot ci Sénégal yëpp yal na yàlla bëri lii ci Sénégal ndax lii mooy karangaay Sénégal mooy yëkkati Sénégal fii ci àddina moo ko yëkkati itam ëllëg ci àllaaxira yal nañu ci yàlla taxaw yooyu yëpp maa